waaw li waral suñu euh, teewaay tey jii ku ne xam na bis bu mag bi nga xam ne moom moo jublu si di monsieur Cheikh Khadim radiyallahu anhu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bis boobu nag euh, sëriñ Touba sàkk woon ci képp koo xam ne mbégam sa mbég la bu agsee tey nga sant ko ci yàlla tax nag euh, képp koo xam ne taalibu Cheikh Khadim nga ak képp koo xam ne ab jullit nga rek saa bu bis fi agsee nga feeñeel ci sa yéene Serigne boobu di président CCBM di sunu xarit moom it bokk ci euh, doomi dëkk bi di doomi yoon bi di doomi daara joo xam ne daara moo ko produire yàlla dogal mu am ay taxawaay yu am solo euh, ci réew mi nekk koo xam ne it bis bi saa bu accès mu feeñal ci yéeneem li muy jëf nii feeñal yéene la tudd ndax bu manoon ni mu koy waxee bu manoon mooy def lépp loolu nekk ci xolu taalibe bu ne muy boo manoon kenn du la ci jàppale yaay def lépp moo nekk ci xolam yéene ko bu ko mënoon def ko defe ko lépp loolu nag mooy waral ba euh, saa bu bis bi accès mu feeñeel yéeneem ci li mu jàpp na rek euh, bu ca feeñeel yéeneem dana am solo euh, ku ne xam na ne bis bi ay wàll la jàng alquran jàng xasida waaye am wàll wu am solo wu ñuy wax bernde bernde ko wax faaw nga wax lekk faaw nga wax naan yàlla dogal it nag naan bokk ci li nga xam ne mu ëpp solo dañuy wax ne li ëpp solo ci dundu aadama doomu aadama lu mënta ñàkk la ci jiitu mooy oxygène bi nga xam ne moom lay nooyi bu jàllee mooy na am ndox li nga mën a muñ lekk mënoo koo muñ am ndox euh, mu feeñal yeneen ci wet googu it ci lu am solo euh, euh, ngir bëgg rek képp koo xam ne ñëw nga ci dëkk bi bu sañoon moo lay naanal waaye képp koo xam ne naan nga benn góoxu ndox boo xam ne yàlla dogal na mu jaare ko ci moom mi ngi ci sàkku aw yiw ak di ci nekk sàkku ngërëmu Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu produit yi nga xam ne moom moo koy liggéey bu nekk jël jël na ci lu mu feeñale yéeneem ci ci ci bis bi loolu nag euh, ku ne xam ne ne euh, du lenn lu may euh, sàkku ngërëmul Serigne Touba ñu ñaanal ko nag en tant que sunu mbokk sunu xarit en tant que doomi daara joo xam ne fierté la ci ñun waa daara ñu di ko ñaanal yàlla defal ko taxawaay bi jamono ju ne muy gën man li nga xam ne moom la man yàlla dogal na li doon yéeneem dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mbooleem lu ñuy naan fii ci jëfandikoo di ko jëfandikoo ci wàllum ndox fii ci Touba ci màggal gi moo doon mu jëf ko waaye lii ngeen gis ñaari camion yi taxaw moom la fi indi ci wàllu ndox boisson boisson baa ngi nii sunu ginnaaw ak lee nga xam ne moom lay liggéey ci wàllu produit euh, muy omo yoo xam ne produit am la yu bees yoo xam ne indi na ko ngir yéene la ko fësal ko ci bis bi ba nga xam ni taalibe yëpp danañ ko euh, sëñ Bass Abdou Khader dana ko mën a jël jébbal ko sañ sëñ Muntaxa euh, dana ko ko leeral incha allahu rabbi moorloo mii nga xam nag mooy responsable lu yi nekk fii ci kër gi di recevoir yëw yi moom lañ ko teg ci loxoom ak Ahmed Saloum Dieng ñoom ñëpp ñu leen di sant di leen seen taxawaay lii daal moo doon li nga xam ne moom la alaaji sëriñ boobu yéenale feeñale yéenam ci bis bi nañ ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ak ay cëram ma ànd ak alaaj Ndiaye Ndindi mi nga xam ne responsable la fii ci Touba di jiite ci bokk ci jiite daara yi ñu la alaaj sëriñ bu yabaloon kon daal noonu la yëf yi demee waaw ni nga ko waxee dëgg la dëgg yàlla jëf bi ñu jëf sëriñ buub bi euh, ñu jàppale bu baax dana jàppale comité d'organisation bi bu baax ak sëriñ bi ci ni ñuy taxawoo màggal bi te lii ñu gis ne lu mu yàgg def la ndax fukki at maa ngi jiite commission intendance mais chaque année lu jëm ci ndox mi lu jëm ci boisson ak yu mel noonu lu ci ëpp sëriñ boobu moo koy moo koy indi kon loolu day firndeel rek li li sëñ El Hadj wax léegi ne moom doom la ci kër gi ah fii daal la bokk ca wane na ko ci fànn yëpp kon defe naa man sax du ma wax waxu ay cant ndax cant yi ak lii aju ci mbir mi yooyu yëpp sëriñ bi moo koy defal boppam waaye danaa wane ne wax dëgg yàlla en ma qualité de président de la commission intendance du comité d'organisation xam ne produit bu ñuy andi ak ku ko mën di indi muy muy muy muy kilifa

في كل زار وفي سفر هماني على ماهن مع الحس والسفر